fierté Sénégal yëpp la fierté adduna bi yëpp rek lay am macha allah xëy na abse de temps bi ni la waroon demee mu demee noonu rek mais elle restera toujours ku mag incha allah. mais tey yaay ban mbégte ngay am ci sa doom organiser lu mel nii. waaw ku mbëggaloo lu mat 300 kenn gisu ko tey ji mu di kaa fas def retour nga ñëw tey ji gis mbooloo mi nga xamante ni taxaw nañ fi ndax ku mbëggaloo mi sa doom ana tey ji ban mbégte nga am ci bis mu m nii. mbégte mu rëy parce que ku mooy Sénégal. Sénégalais yëpp ko bëgg. ñëpp ko admiré ñëpp ñoo amoon tuuti lu xam ne mi ngi seen i xol kon tey buñ koy foog xool retour en scène ñun ñëpp danañ war a kontaan waaw. mais tey ji fi musique Sénégal toll nga xam ne gone yu bëri ñu ngi jóg di roy mel ni Kumba Gawlo. waaw coow li bëri ci ni ñuy waye ni ñuy solo. tey ji ñu gis Kumba Gawlo ko mel ni moom way bay bëgg a jàll de mës a def ne gone yi def tey ji boo amoon message booy jàll gone yi tey ban message nga leen di jàllale. waaw ñu góorgóorlu rek. beaucoup de valeur way yombul non non non wala boo ma boo bëggee mën way da nga ci yàgg pour nga yàgg ci. da man mën baax da rek la mën rek foo nga mën rek leneen. gëm nga Kumba na mu meloon bu ci doon ko ci gawlo gi dina ko wane tey. loolu c'est loolu la veille toujours toujours toujours là ah, li ci kanam rawul bët waaw incha yàlla defal cat incha allah yàlla defal ko li mu gën a bëgg ci kattanam parce que ñu ñëpp suñu voix la ñuy dundee kon Coumba Gawlo la voix d'or yàgg na ci daal yi yàgg na ci daal yi elle a tout fait amul dara lu muy lu muy lu muy prouvé elle a été à la hauteur. ay musiciens am bu lekk. kii dafa social. lu bari dafa pesé ci kawam waaw. ok merci maman. yaa suñu lépp lu baax leen sa maam ndimmee ko peñi gi leen gee ko sëf jaamu nga yema ko suul dem ne caasi nay bàyyi ma ko nga dem jaale jooju bàyyi jaab ne ñoom ñi moo leen moom jaab ñu xes moom leen maman Soda ah di la ziar bu baax a baax ah maman sa sañse baax na. maman ku la ñëwal. dama dama ubbi buntu bi rek armoire bi. Mhm. mu wodd rek ma jël ko fa. waa jongo maa nii. waaye fal ko rek mag buur la. Ah. mag lu ma def si ko ko. Ah. daal nu naa la maam jamaanu waa ci réew mi. maam la waaw macha allah waaw suñu maam lees tey laa sant bëlëm bu baax. maa ngi fi yaa ngi ci jàmm bu baax a baax. la. maa la raw. def. maa ngi a ngi ci jàmm bu baax. waaw ñu dañu ñëw tey rek comme sama doom bi dafa yàlla dafa tawatoon bu yàgg ba tey. waaw toogaay bi yàgg na trop. toogaay bi toogaay bi yàgg na mën nañ ñëw rek. comme ça ñu soulager ko. yëkkati ko ci kaw ndax moom ndaanan bu mag la te daf ko booleeg yar bëgg ñëpp di di xale bu baax tubaarkàlla doon doon nag woy loolu moo tax ñun ñëpp tey ñu ñëw. kon daal tey le grand retour de la diva dina am doole lool te tamit dinañ ci xaar surprise yu doy waar. li mu wër mooy tey nga tey nga gis loo mosul gis ay surprise yu am doole tey nga koy gis. kumba ma woon daal dinañ ko gisaat tey. mu ko mu ko raw. bu ko raw waaw ah, macha allah sa bëla baax na. waxal dama yóbbaale. ah waaw ñu bëggoon a xam rek sa ñu bëggoon a xam rek sa teewaay tey ci bis bi xam mooy le grand retour de la diva kii di Coumba Gawlo Seck. Euh, sama teewaay mooy. Coumba Gawlo sunu doom. ànd yaayam maase ak moom papaam di sunu frère di sunu xarit ñu jur ko ma ngénte ko mu am respect am charisme am dignité ba pare rek dafa généreux. amul benn woykat bu mag bu màggat comme ñun te bu Coumba Gawlo wooyee doo jooy dina booyam dina am mbaar dina am jolli dina am mbëfën dina am bëpp te loolu géwél ko xam yaa na yeggalee sa bopp yaayam di xarit nag ki ne la am mooy sunu caat ndax moom lu ñoom ñoo ko mag waaye lu ne lañ koy yekk euh, mbubb moo ubbi sunu armool boo nee benn ñaar ñett da ngay ñeenteel bu la kii ne la am yoon mbaa lay fàttali nga ay. su ma su cofeel gi muy am ci yéen rek laa koy xamee. si si noonu la mel nday saatu beneen affaire la waaye Kumba Gawlo mii nag dafa bëgg yaayam bëgg papaam bëgguñu ñu ànd ak yaayam Fatou Mbaye ànd ak papaam eh, Ablaye Seck muy sunu doom bàyyi wuñu benn yoon looloo tax ñu ñëw dañuy ñëw ñu artiste yaa ngi ñëw kon daal tey tey jii nii dinañ xaar surprise yoo xamante ni kumba ma woon maanaam kumba mi daan way nga xam ne géwal a way gawloo way kumba ma xamante ni su daan way da ngay gis ni ñii yaram yi day daw nga xam ne waykat ku li fadirin mooy woy tey kon dinañ gisaat kumba boobu eh, wayam kumba ko rek mooy way si xale nga dégg mbëfën mbëpp mbaar njolli njolli mu juddu waale daaj loolu géer ñi xamuñ kumba ko ne ñu ko danaan bërit ba nga defar day dem mu dellu ginnaaw ci woy wi yëpp ci woy wi la woy ceeb la boo jëlee ci bitig ba di ko tànn da ngay jël xam nga ceeb loo sànni ceeb bi tànn ceeb bi moom ngay sànni loolooy woy li ci nag day jafe pour nga xam ko seenu nous Griots dans les Rock League.